tey doore ak Walf euh, Quotidien ah Walf Quotidien bon sans commentaire dañuy wax ba tey ci li nga xamante mooy génn àdduna bu euh, dir pub bu Walf Quotidien di ki nga xamante ni mooy Abdourahmane Camara ñu gënoon ko xam ci kamu nga xamante ni ci euh, Euh, ay bés euh, dimanche la daal di euh, génn àdduna moom Kamo ñu leen di xamal nag que ni li nga xamante ni mooy dépouille bi dina yegg ci dina yegg si fii ci Sénégal tey jii nii dans la nuit du mardi au mercredi vers 3 heures du matin ci la yegg si cérémonie levée du corps bi mi ngi am demain mercredi. fële ca mosquée Aboubakrine Sadikh bu nekk ca Sacré-Cœur bu 9h jotee 9h ci suba. li nga xamante ni aussi mooy enterrement bi dina am ba tey ci même jour bi di suba mercredi fële ca cimetière euh, marmial de Sor euh, nekk fële ca Saint-Louis loolu moo fas yéene am a ni ki suba moom Abdourahmane Camara ñu fas yéene ko jébbal suñu borom fële ca Saint-Louis cimetière yu euh, marmial ñu koy ñaanal rek suñu borom daal di woyofal suuf ci kawam moom Abdourahmane Camara ñu daal di jël li nga xamante ne nii mooy Vox Populi Vox Populi ñoom tey nag ñu daal di def ci seen une. Euh, li kii di Sidi Ba secrétaire général du cadre de concertation des producteurs d'arachide et porte-parole du CNCR ñu daal di ne le secrétaire général des producteurs d'arachide conforte Cissé Lo moom nag kàddu yi mu xam ne mooy kii di Cissé Lo il dit tout haut ce que les producteurs et les honnêtes ont toujours dénoncé tout bas maanaam daal moom si la li mu wax dëgg la te li nga xamante moom la nit ngi doon wax ci suuf moom moom la yëkkati daal di ko wax ci kaw di ñuut njaaj yi nga xamante mu ngi am ci distribution euh, semencière engrais euh, yooyu noonu Aliou Sow waaw xanaa loolu de xanaa mënuñu si teg dara lu dul mhm. euh, expression bi ñuy wax d'habitude mhm. un petit peu vulgairement mhm. mooy xanaa xanaa xanaa wax day day fexe day jeex waaw mhm. waaw xanaa wax day jeex mhm. kon kon kon kon kon kon kon kon leer na nañ mhm. euh, dama tout le monde savait que euh, li li xew ah je je je je l'ai dit hier ah au ministère de l'agriculture boo demee ku nekk chaque année da ngay am say say say say say sa quota yaa ngi dégg dañ koy séddoo entre ñoom ah y a il doit y avoir à peu près mille tonnes. Euh, d' engrais ah la la li ñuy distribuer environ entre quatre-vingt ak cent disons donc loolu gars yi ñoo koy ñoo koy séddoo ci seen biir dafa am ñoo xam ne dañu ay gros opérateurs la ñu ñoom ñoo jël mbir mi di ci teg ay di ci def seen i business au détriment des petits producteurs sénégalais donc c' évident que ni loolu Moustapha Cissé Lo doon wax lu am la la question kay c' était de savoir est ce que Moustapha Cissé Lo am na ci droit wala amu ci droit moi j'ai toujours pensé que ni Moustapha an est-ce que euh, ni mu amee 4000 tonnes mi wala mu am est-ce que am na ko jaaral na ko yoon waaw wala déet wala est-ce que li mu jox euh, moom te mu xeeb ko est-ce que euh, il a le droit mu koy xeeb moom Moussa Cissé Lo wala parce que ñeneen ñi dañu war a am waaw wala déet par rapport ak sa puissance dans le dans dans le milieu agricole. donc ma je ne sais pas je ni moom il a été quand même il est toujours agriculteur depuis un certain nombre de temps bien avant. pratiquement sax muy def politique donc loolu c'est normal mais est-ce que les autres aussi euh, parallèlement telle une personne qui est assez euh, connue hein, parce que jabaram ministre de la République la mooy jabaru euh, jëkkëru Mariama Sarr maire de Kaolack et ministre du genre euh, euh, de la famille et donc est-ce que de de xam ne xamuñu leen et cetera ñoo juste rek parce que am nañu y a beaucoup de conseils économiques et social environnemental beaucoup de députés yoo xam ne dañ leen jox ay a intrants yoo xam ne dama peut-être que amuñu si droit te dañuy tegaat deal ci affaire bi jaay ko jël différence su subvention bi euh, denc ko seen poche donc vite fait bien fait on est facilement multimillionnaire il suffit juste que ñu ñu jàppale la maanaam dara lu jox la euh, un certain nombre de tonnages par rapport aux intrants agricoles donc c'est évident que ni li Moussa Cissé Lo wax euh, ñëpp mais c'est vrai que man li ma jaaxal kese mooy benn affaire mooy le secrétaire général de euh, des producteurs. mais ce monsieur qui est ce que mooy monsieur Ba. est-ce que pourquoi pourquoi li ñuy wax ci suuf yow loolu du sa rôle parce que quand on est porte-parole euh, nekk ci euh, euh, communauté entre guillemets ci wàllum agriculture bi affaire mbay meek yi demee noonu élevage donc lu tax ngay wax li ñuy wax ci suuf yow waroon wax loolu parce que finalement yow lii da ko war a wax ci kaw yow. Mm. yaa ko war a njëkk wax ci kaw avant Moustapha Cissé Lo di ko wax. Mm. yow tamit parce que da ragal après finalement say avantage ñu génne la ci ba xaar ba Moustapha Cissé Lo doog a wax yow nga taxaw ci suuf naan Moustapha Cissé Lo li mu wax euh, ñëpp a ngi moom la ñuy rumbalaat ci suuf mm-hmm. loolu je pense que yow du sa cër monsieur Ba et puis waroon nga yow njëkk wax wax bi balaa sax Moustapha Cissé Lo di ko wax ndax parce que da am une position par rapport ak yow sa poste de responsabilité bi nga am donc moo waroon tax nga mën a wax wax bi te mu doon dëgg Sénégal yëpp teg seen bët euh, wala balaa ngay xaar Moustapha Cissé Lo di ko wax mm-hmm. kon yow foofu euh, carton rouge à mm-hmm. et puis bon bah maintenant après c'est une histoire d'intérêt ah xam naa ne moom tamit ay bagaasam lay jéem a a finalement moo waroon nga mën a noppi ah bañ continuer noppi noonu rek parce que jaru mm-hmm. sa responsabilité la lii ñëpp nag il faut ñu tas ko rajax jaxase carte gi jëlaat jëlaat lépp recommencé waat ko à xool fan la dëgg nekk dëgg kese te yàlla tax bu boobaa ñu def ko rek wax di jeex mm-hmm. euh, Théodore Simédo euh, d'abord une petite précision par rapport au ministre du du travail c'est Samba Sy Mariama mm-hmm. Sarr c'est le ministre de la fonction publique et des organisations professionnelles. Mhm. donc ministère de la famille c'est Ndeye Saly Diop. donc euh, il une chose boo mhm. xam ne mhm. les mêmes causes produisent les mêmes effets chaque année. pour moi il est grand temps qu'on fasse une chose. benn enquête judicieuse. boo xam ne dañuy def audit fan la semence yi nan lay jaaree ñu xam ñi di ci def nag di ci luubal te ñu sénégalais ñu xam leen lii dañuy luubal. ñu kii leen parce que boo xoolee soble bi noonu la mhm. soble bi noonu la pombiteer bi noonu la mhm. gerte bi noonu la waaye mais ku nekk ñi nga xam ne tamit dañuy téye ci turu baykat yi di dundee seen deret filière tomate nañu am seen ngor mhm. parce que loolu dafa bon parce que yaa ngi koy jël di ko jox seen njaboot loolu tamit dañ ko war a seetaat nit ki da ngay jiital yàlla waaye mais gis nga loo ko def def nag gis nga nag at atta yàlla justice divine dafa am booy jël nit di def yu bon di def yu bon yàlla day xëy atte te atte yàlla moo gën a garaaw nañu jël mbir mi gerte bi ak lii am ci mbay bi ñu def audit ñu xam dëgg-dëgg yëf yi fan lay jaar est-ce que ñu laajte quota yooyu quota yooyu est-ce que ñu ngi ñu xam ku ko def def la daan mm-hmm. eh, parce que il est grand temps que autorité étatique yi am courage mm-hmm. parce que secteur agricole bi dañ ko politiser am na ñoo xam ne régime bu ñëw ci baykat ñu réew rangé wu pour def deal business malsain mm-hmm. il faut qu'on audite l'agriculture ma ne jarul audit pardonnez-moi mais jarul audit il suffit juste de prendre des décisions il suffit juste que le président de la République def li mu a def parce que maa ngi wax fi dem Macky Sall xam na li xew euh, euh, mbay laay xam nga tey euh, moom la wax bu léegi dafa gën a dañ daan jël engrais bi wala ñu jël jiw yi jox ko ki nga xam ne mooy seen militant yi tey boo bokkul euh, parti parti au pouvoir tey doo jot léegi nag ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci gouvernement bi ñoo koy séddoo ci seen biir tey baykat yi perte boo xoolee baykat yi ci bëri ñu ngi ñu ne Dakar dafa saturé ils font Sénégal émergent lan moo te nit ñi amuñu ñu lu ñu bayee am nam suuf mais amuñu moyen yu ñu bayee mhm. ñoom ci boppam ñooy séddoo li nga xam ne carrément baykat yi war nañ ko ki nga xam ne yaa ko war a jox mu bay yaa ko war a jàppale pour mu bay yow boo jëlee loolu bayee ko boobu lan lay bayee lan lay bayee lan c'est ça la grande question moo tax li li li ko ah. wax rek euh, man dama koy confirmer Aliou Sow muy que ni il faut que ñu ubbi une enquête boo xamante et puis une enquête sérieuse pour daal di euh, situer les responsabilités parce que tey jii ni Moustapha Cissé Lo wax na ki nga xamante mooy seen secrétaire général wax na donc foofu débat amatu fa li des instant bi mooy uh-huh. mais waru enquête pour lan mais mais xam nañ ko mm-hmm. xam xam nañ xam nañu xam nañu bi fu ñu koy yóbbu dafa am ñoo xam ne il faut ñu dindi leen ci biir mhm. il faut parce que bokkuñu si mhm. parce que du seen yëf mhm. il suffit juste de les enlever jël ko xool ñan ñooy les vrais producteurs ñan ñooy les vrais agriculteurs ñan ñooy les vrais paysans ñu jël engrais bi ne ko ko mais su ma waxee enquête su ma waxee enquête du mari de Mariama Sarr foofu enquête dafa war a am parce que moom il est ba ñu war a mën a yëkkati xaw Mariama Sarr boobu loo koy mënoo def mënoo def dara loolu arrêté ko ba lii mu am nii dootoo ko amati xam nga démb nee naa leen mhm. l' année prochaine mhm. jëkkëru Mariama Sarr il sera mhm. milliardaire parce que quand on a 4000 tonnes euh, <laughs> boo ko multiplier boo defee le calcul du prix du tonnage euh, il va avoir 4 milliards à peu près donc disons allez je suis gentil il aura 2 milliards 2 <laughs> milliards boo xam ne li ma wax ni ñoom ñoo fi dindi ko moo ko waroon am li ma wax ni kenn du ko dindi donc il suffit juste que rek moo tax ma ne la yow Théodore mu ne mu ne euh, Macky Sall wala ak gaayam yi mu ne la jox léegi léegi def la milliardaire au détriment des populations des paysans ñi nga xam ne ñu ngi ci gox yi Koumpentoum nga xam ne ñoom li ñu soxla rek mooy def seen bénéfice su 20 millions bu ñu amoon 100 paysans wala 1000 paysans yoo xam ne ku nekk am nga bénéfice su 20 millions les mêmes organisations ñooy yooxu naan ay bons impayés ñuy mm-hmm. toog naan ay bons impayés état na kii mm-hmm. alors que buñ koy jël xam ne mu xam ne mënuñu ko respecter wala su ñuy la ñuy def ñoom ñooy ñëwaat encore yooxu waaw ah mhm, mhm. erreur de poste ñu euh, defee li nga xamante ni liggéey bi ñu ko tegee ci yoon rek am na yenn problème yu bëri mën naa bañ a am mhm. l'homme qu'il faut à la place qu'il faut loolu ñu war appliquer di bàyyi aussi di li nga xamante ni mooy intérêt personnel di jiital intérêt général bu population bi dañu xam ne ñoom popu askan wi ñoo tax ñu teg leen fa donc du coup te man li ma gën a metti mooy tout le temps ñi nekk ci kaw dañuy jël ay décision yoo xamante ni duñ joxe benn explication li nga xamante moo mooy li ñuy def ñoom ñoo ne xànke ji di nekk si ay jafe-jafe loolu si boppam moo fi man mënu ma benn affaire de man mënu ma benn affaire hmm. ak suuf bi nekk fii yëpp suuf bi nekk ci Sénégal yëpp ndox bi fi nekk cinq fleuve la ñu am moo am Sénégal ndox bi dangay gas di génnee bu la neexee bay noor bay nawet mais loolu mënuñu ko def tout simplement mais ils sont pas cap ce n'est pas possible qu'ils soient pas capables xoolal mënuñu jël mënuñu jël mënuñu jël mënuñu jël suuf bi nekk Sénégal yëpp est-ce que gis si boo xam ne de mais mais mais fii lu nekk lañ fi mën a mën a jëmbat mu sax autosuffisance en riz mënuñu ko am autosuffisance même alimentaire ñun sécurité alimentaire war nañ ko mën a am ci ñaari at benn mandat pour Macky Sall ñu am autosuffisance euh, ou sécurité alimentaire parce que xam nga lu tax parce que suuf bi maa ngi fi mu ngi fi il faut juste prendre l'argent def ko nga ko war a def jël def leen fi nga war a tracteurs jox ko ñu ñu ko war a jox bu fekkee ni paysan bi mënu ko ñu def sous forme de coopérative entre ñoom ñu jox leen ñu dem liggéey ñi war a ñi war a aussi ñu indi ay nak indi yàpp bi gën a moins cher jël nagu Hollande yi nagu brésilien yi indi leen fii teg leen fi di leen surveiller jox les moyens les les docteurs vétérinaires ils vont faire le travail jàppale baykat yi à la limite sax sous forme de subvention ñuy fay docteurs yi ñuy dem di jàppale baykat yi ak éleveurs yi ñu am ay xoolal yàpp bi yàpp bi day bari meew bi day bari mm-hmm. euh, euh, euh, suuf si lépp la ñuy bay mu fees dell xoolal ñu ñooy am bay jéggaane mën na nekk waaye loolu bu amee mm-hmm. ñii di am ay alal yëpp ngay gis ni mm-hmm. dootu ñu amati alal dootu ñu amati alal parce que dil bi dootul mën ci nekk ndax alal boobu def ko ci paysan euh, yi véritablement mm-hmm. moment boobu nag mm-hmm. eh tant pis pour les autres mm-hmm. ces voleurs ci ñii di am alal ñooñu noonu sax ci la ñuy war a war a dem nii wax ci ki nga xamante mooy Moustapha Niass ah, parce que bu ñu jëlee li nga xamante la tribune ñoom tey ñuy def ci seen une euh, absence de transparence et de contrôle des ressources destinées à l'Assemblée nationale Cissé Lo ba tey ah, Cissé Lo critiqué la gestion du euh, du patron de la euh, représentation nationale di alal bi nga xamante ni euh, ki nga euh, Moustapha mu ngi koy am te xamuñu fan lay jógee amul benn li nga xamante mooy transparence te yàgg nga ko fee wax sax nag. bah oui bah en général ils disent que dama contre diw wala dama machin diw. Mhm. mais man sama sama yoon nekku ci. Mhm. man li ma intéressé mooy peuple bi nga xam ne fi nekk am alal te alal bi. Mhm. alalu Sénégal la te bariwul loolu ñu war ko séddale ci ay anam a rafet ma gis ay nit yoo na yenn alal yi te moomuñu ko te liggéeyuñu ko c'est parce leen di dénoncer loolu kese laa def def ma leen muy Moustapha Niasse muy keneen mais pour le cas de Moustapha Niasse mhm. quand on regarde véritablement mhm. regardez assemblée nationale ñaar ñoo téye alalu assemblée nationale ñaari nit ñoo koy contrôler mhm. mooy Moustapha Niasse ak le premier questeur de l'assemblée nationale premier questeur bi du kenn ku dul euh, euh, <laughs> xam ngeen Daouda Dia Daouda Dia mooy questeuru assemblée nationale mooy frère mooy rakku Arona Dia donc il fallait bien le féliciter comme a Arona Dia moom mu ngi politique te apparemment jàppale woon na Macky Sall euh, ci élection présidentielle yi donc forcément il fallait il fallait le féliciter donc Arona Dia boobu mooy le premier questeur de l'Assemblée nationale donc moom ak Moustapha Niasse Assemblée nationale il faut comprendre une chose 6 à 7 milliards la am de budget à l'Assemblée nationale te gis nga budget mhm. neex lañ ciy def c'est quand même extraordinaire. On est dans un pays où on n'a pas beaucoup d'argent. Uh-huh. On a un budget à l'Assemblée nationale qui tourne entre 6 ak 7 milliards de francs CFA par an mais budget boobu ëpp na ko ah amatuma une kii exact mais yooyu la mais xaalis boobu ñoom Assemblée nationale lu leen neex la ci Moustapha Niasse di def man musuma gis lii ça fait juróomi at maa ngi wax benn affaire ba léegi dégluguñ ma waaye ñu déglu rek boo la fi jógee dinañ au niveau de l'Assemblée nationale du Sénégal démocratie ñu ne démocratie la ñu indépendant depuis 60 ans pratiquement l'année prochaine ñu ne ñun Assemblée nationale boobu président commission des finances dans les grandes démocraties le président de la commission des finances il vient toujours de l'opposition pourquoi du ñu jël toujours ñu bind dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ñu def ko sax sous forme de président de la commission des finances assemblée nationale toujours ci opposition bi lay jógee. parce que commission finance bu fekkee ni nit ki koy jiite opposition la jógee xam nga kooku même bu fekkee ni sax opposition bi ñaari député rek la ñu ci assemblée nationale kenn ci ñoom ñaar mooy nekk président commission des finances lu tax loolu parce que dina tax muy mën a contrôler. finance su assemblée nationale cest que dina mun di jàkkaarloog ñoom di liggéey ñi nga xam ne ñooy majorité bi ni ñuy lijjantee xaalisu assemblée nationale bi budget bi donc loolu bu ñu ko en mon sens dina leer nañ dans toutes les grandes démocraties le président de la commission des finances à l'assemblée nationale provient il provient toujours de l'opposition pourquoi du ñu jël ñu ak président assemblée nationale di lëkkaloog questeurs parce que y en a quatre ou cinq questeurs le premier nee naa leen premier questeur bi Daouda euh, dugaleen fu leen neex Moustapha Niass à cinquante millions de de de de de fonds politique boo xam ne chaque am na droit def lu ko neex te bokkul ay salaire ak avantage yi nga xam ne moom la moom la euh, qui lui est dû par rapport à son poste de de de président de l'Assemblée nationale donc yooyu yëpp c'est injuste et il faut revoir tout ça ci yooyu la ñu war di waxtaan moo gën ñu ñuy wax yenn détails yi wala yenn xuloo yi qu'est-ce qui se passe ndax sénégalais yi xam Assemblée nationale ñetti nit ñoo président commission des finances à l'Assemblée nationale ak le premier questeur surtout ak ñi topp ci moom moom quatre ou cinq questeurs la ñu foog naa mm-hmm. te te seen patron mooy euh, Daouda Dia euh, rakku mm-hmm. euh, contradiction moom Assemblée nationale parce que au moment mm-hmm. ñoom ñi ngi ne dañuy promouvoir emploi des jeunes malheureusement y a beaucoup de retraités à l'Assemblée nationale ñu ngi fa di occuper des postes ñu dafa leen ay contrats spéciaux donc loolu tey war nañ ci wax ñoo ñu def contrat spéciaux te ñoom état bi ñoom ñoo ne dañuy promouvoir emploi des jeune jeunes yi nga xam ne ñu ngi foofu assemblée di trembale ñeneen am seen diplôme war a avancer nañu régler seen affaire. Mhm. loolu mooy yoon ñu bëri ñu ñu ngi foofu assemblée waroon avancer amul ñu ngi toog à l'état stationnaire au même moment des nekk foofu ñu war a kii ñuy bénéficier contrat spéciaux ñu lese ñu rese à rade ñooñu kon loolu war nañ ko xoolaat nga di def rupture la rupture doit être appliquée mais doo ne rupture ba pare di def leneen. d'accord mais Aliou Aliou Sow man foo bëgg a ñëw aussi mooy tey jii nii assemblée nationale buñ koy waree auditer n'est-ce pas euh, OFNAC moo moo ko war a def. bah euh, c'est-à-dire que c'est plutôt euh, Macky Sall mën par exemple inspection générale d'État ne leen dem leen ngeen vérifier loolu mbir sàngam ah, ah, e. wala waaw voilà wala IGE wala le président de la République mu def benn benn benn un courrier mm-hmm. où il demande à, à l'Assemblée nationale de de de de, réfléchir ci mm-hmm. benn cas boo xam ne comme cas wu Macky Sall bi par exemple musoon nañu yónni assemblée nationale mm-hmm. ne leen mais jëpp euh, ne ne bon en général courrier bi ñu ngi koy adressé toujours à la présidence de la commission des finances moment boobu euh, maire Mbabo moo fa nekkoon nu mu tuddati woon euh, ah ah mm-hmm. Mamadou Seck moo doon président commission des finances gis nga toujours entre ñoom la quoi ki nekk sa rek la jël opposant bi mm-hmm. mais Mamadou Seck xam nga PDS la nekkoon moom lañu jëloon def ko président commission des finances léegi ñu yónni avec la présidence du conseil euh, de surveillance bi nga xam ne kii moo ko jiite woon euh, Karim Wade et puis mm-hmm. Abdoulaye Baldé nekkoon directeur exécutif bi moment boobu nag dañuy dañuy yónnee bi courrier boobu nag président assemblée nationale moom mooy valider waaw wala déet mm-hmm. mais en général yooyu du mën a nekk xam nga lu tax mm-hmm. c'est difficile parce que président assemblée nationale bi ak président de la république déggoon nañu bu yàgg président de la république gis nga la à la preuve Abdoulaye Wade lan la waxoon euh, euh, lan la yóbbante woon ci nit euh, avant muy jotee bi mu commencé di am problème ak Macky en tant que président assemblée nationale dafa yónnee ne que wax mu jox ma sama yëf. Mm-hmm. vous vous rendez compte Abdoulaye Wade président de la République grand démocrate. Mm-hmm. mu yónnee ci Macky Sall. Mm-hmm. ne wax leen ko mu jox ma sama yëf. Macky ne du démissionné mais Macky Sall bi mu ñëwee ci nguur gi moom. il a fait exactement la, la même, même chose. il a dit à Moustapha Niasse ok grand di nga ma jàppale waaye man maa la def président assemblée nationale ba bis bu mu la neexee. ma doog bis bu ñu neexatul man ak yow ma bàyyi. Mm-hmm. maanaam yow kon yow continuer di ma jàppale rek moo tax euh, Moustapha Niasse sacrifié ñoom ñoom ñoom ñoom Malick Gakou et cetera. Mm-hmm. donc c' est évident que ni moo tax bu may wax ni des fois du ñu comprendre mais quand je que ni mbir mi mënul changer parce que ce sont les mêmes nouvelle manière de faire il faut des nouvelles personnes il faut carrément changer des générations d'hommes politiques et de femmes politiques parce que ñooñu ñooy indi ay idées yu bees parce que boo leen fi tegee les mêmes personnes c'est toujours la même chose parce que imaginez si je, je vous ai donné l'exemple de Macky Sall c'est parce que Macky Sall loolu subir na ko Macky Sall dafa ne ñett du démissionner day xaar ñu dàq ko finalement ñu créé benn loi def léegi poste assemblée nationale par année nga xam ne dañ koy renouveler présidence bi dañ koy renouveler chaque année gis nga loolu mooy moyen bi pour dàq la et puis euh, keneen ku ñu fa teg aussi si lañu c' curieux quand même parce que kooku ñu yónni woon pour mu teg dil bi moom Mamadou Seck kooku moom a remplacé Macky Sall après à nationale donc loolu yëpp ay dil la woon te yooyu moo fi war a parce que dil pour mu bañati am il faut que ñu verrouiller la constitution et je reviens encore pour dire tout à fait euh, naturellement et comme je le dis habituellement que ni l' nationale euh, la constitution de ce pays elle n'est pas bonne te constitution aussi yaay gaañ donc il faut une autre forme de mm-hmm. une autre constitution une autre idée de constitution boo xam ne dafay verrouiller kenn dootu ko mën a laal au moins sur deux générations pendant vingt ans mm-hmm. parce que benn génération à peu près dix ans la mm-hmm. donc dans vingt ans bu ñu defaree benn constitution bi dañu naan lii kenn du laal ku ñëw yaa ko fekk ba pare wàññi les prérogatives présidentielles Abdoulaye Wade nan la mënee wax Macky Sall yónnee ci Macky moment boobu noonu moom est-ce que yaa ngi imaginer état d'esprit bi Abdoulaye Wade nekkee moment boobu mi ngi naan xanaa xëy na mooy yàlla ah. mooy yonent mooy buum du jox ma sama yëf mm-hmm. mais ban yëf la Abdoulaye Wade moment boobu am ba di wax Macky Sall jox ma sama yëf alors que normalement mm-hmm. assemblée nationale député ñi leen war a fal mm-hmm. warul doon président de la république askan bi moo leen war a fal et ñoom ci seen biir ñu seet kan moo gën a dagan dagan entre guillemets pour nekk président assemblée nationale waaye fii Macky Sall moom mooy nan diw mooy nekk Macky Sall yow tamit bi nga nekk président assemblée nationale Abdoulaye Wade moo la choisir moo ne diw mooy ñëpp d'accord ci comme ay xar yaa ngi dégg ah. ah. yooyu yëpp ay jikko la mm-hmm. état d'esprit la mm-hmm. mentalité la comportement et attitude donc yooyu il faut carrément jël ko beddi ko tegee ko de côté mm. mën a def leneen lu bees te lu bees loolu nekk mm. lii nii moo koy gêner parce que ñoom ay facteurs d'empêchement la